barakallah merci beaucoup je pense que damay sos sama wax ci waxu imam mu doon wax bu am solo ndax euh, ñun ci ñoom lañu la ñu wéeru yonent bi wax wax bu am solo man kaana yuminu billahi wa yawmil axir fal yaqulu xayran aw li yasmut hmm. maanaam waxal li nga xam muy dëgg wala nga noppi hmm. te dama jàpp ne li mu wax dafa indi ay dalil yoo xam ne dafa am ay référence ci wàllu diine te référence bi ma déglu ci li mu wax mooy Iblis bi mu tooñee yàlla suñu borom yàlla daf ko jox opportunité da ko dama la yóbbu procès pour nga defaan sa bopp je pense que loolu bu ñu ko ramanee ci expression terrestre dafa am maanaam ci suñu expression fii ci réew mi ci dossier bi loolu daf ci am ndax ak ku mu mën a doon rek man ak sama moroom ak keneen a ci yem képp ku yoon soxla wala da nga war a ñëw taxaw layal sa bopp. Hmm. soo demul fa ñuy layee lañ la teg. maanaam daf lay mënoo ci dara ndax jox nañ la opportunité pour nga layal sa bopp man de wallahi azim yàlla moo ma tiim seede yéenewu ma ko kaso yéenewu ma ko kenn kaso man yéenewu ma ko sax su ma noon bi gën a metti mm-hmm. ki ma gën a bañ ndaxte nag bu dul dara ay jullit lañu bu dul dara am nañu xol boog buy tooy te man bu biir ma sax ni président Macky Sall ci boppam yéenewul Ousmane Sonko kaso waaye réew réew dafa am nu muy tëddee imam man mii di wax yow sama oto dañ maa fekk suma buntu kër taal ko mu tàkk maa ngi woon ci biir kër gi c'est-à-dire bu dul woon ay dëkkandoo yu baax heure bii waxatuñu samay wax essence lañ taal suma buntu kër oto bi tàkk jëppët waa imam loolu jàpp naa ne ñi ko def ak ña santaane jàpp naa ne même buñ ko layowul fii buñ demee yomal xam dañ koy layow àll mikk waa léegi ci nga xam ne ñun ñëpp dañoo daje comme ni nga ko waxee jox ko suñu sañ-sañ jox suñu doole jox suñu kàttan muy état mhm. l' état est impersonnel ne ko dañu bëgg nga teg ordre mais lu mel nii émission yii am na quelque semaines ci ginnaaw ñemewuñ ko fi yoon def koo invité sax mu daw wala wóorul génn sa njaboot naan la bul dem ndax et cetera et cetera est-ce que Sénégal dañu war a continuer ci nekk ci instabilité mais jàmm jii fi xew nii fan yi sant nañ ci yàlla bu baax mën nga tëdd nga nelaw tranquillement mën nga génn dem doo dajak alkaati doo dajak gendarme mais demoon nañ ba réew mi ñu mel ni réew mi réewum la Wagner a fi nekk wala keneen loolu je que nag dafa am ay responsabilité parce que tamit lëf mënta am rek nga ni personne n'est responsable. lan moo ciy responsabilité sa leader. li ci responsabilité mooy kaka sooke kaka woote parce que dama jàpp ne woote bi bu amul woon xëy na effet effet du am. parce que bu leen newuloon gatsa gatsa mortal combat naa ko rey wala mu rey ma nañ ko diri comme Samuel Doe et cetera et cetera je que eh, créer benn climat de haine defante de lu metti et cetera Sénégal depuis 1960 ba léegi. mais kii Zator mais lu xam nga ma yeggali foofu ma yeggali depuis 1960 ba léegi opposition dafay am ak majorité je pense que crise yàgg na fi am vraiment le Sénégal n'a pas commencé en il y a eu des crises yu méttee méttee méttee mais yéen ñii journalistes yi sax gis ngeen le niveau de haine bi am léegi amul woon même dans les familles maintenant da ngay gis papa ak doom di nekk euh, non c'est-à-dire ñun suñu bopp dañu war a remettre en cause parce que au-delà du fait qu'on soit des acteurs politiques mm-hmm. on est d'abord des Sénégalais ay pères de famille am njaboot dëkk ci ay kër di am suñu opinion aussi di ko war a mën a défendre librement mais maintenant ci ci grève de bi voilà voilà la ci bu wax daf ma doy sëkk diine nee na dàq na loolu sëñ Muntaxa bi mu dajeek ñooñu li ma ci jot a dégg mooy àndul ca loola yëkk dégg naa yëkkati na sax tàndarma tooñ la njëkk a dàq waaw mais dama dama da li ma c'est-à-dire ci grève de la faim bi bu ñu ma interpellé mais tooñ la njëkk a dàq non kan lañ tooñ dama bëgg a wax kan lañ tooñ diine dàq na loolu d'accord mais dàqul loolu dong dàq na la waaw léegi ma yegali xam nga kay kay atte tooñ mhm. kooku yoon moo naan diwa tooñ wala diwa tooñ du président de la république du sëñ Muntaxa du keneen mais yoon mooy atte ne diw moo tooñ wala diw tooñu te yoon boobu atte na maintenant si si grève de la faim bi très rapidement euh, ñu ne la mi ngi grève tantôt ñu ne la grèvewul xam nga Sénégal léegi les informations yu ñu ci am ku ci nekk ni ñu koy traité. mais ces avocats mais tey grève de la faim waaye ñii dem nañ vendredi démb gis ko seen bopp ba def conférence de presse est-ce que tamit président Macky Sall tamit jàppoon ni ak ñi nga xamante ne maanaam appel yi ñu def muy société civile bi ak interne même même ba si ba sa ba sa bitim réew ñu ngi ñaan pour président Macky Sall mën a bàyyi ki nga xamante ne mooy Sonko. parce que non mais président du moom moo ko téye non attendez non Babou xam nga ce qui est dangereux dans cette affaire c'est de dire que président na ko bàyyi. comme si non ñaan la quoi non non non mais attendez boo boo nee président da ko bàyyi day mel ni président ko tëj. président tëju ko non mais mais yoon mais non dafa nekk ci procédure boo xam ne procédure bi c' est pas le président c' est pas l' exécutif c' la justice. d' accord ñoom ñoo ko cest à tey bu ko président doon accord de grâce sax mun a nekk. d' accord.